daanaan la ci côté bépp lu waral loolu ak géwélo VIP laa ko mën a tuddee ndax géwél bu bëgg boppam la waaye tamit géwél gu xam boppam waaye bu weesoo taasu bi nga xam ne mu ngi koy def di tukkal la eh, jamono moom it actrice la en même temps di leen fàttali rek série bu mag boobee nekkoon na dina ma neexe daal dina ci jaar def ci passage yu am solo ba sénégalais yu bari foofu lañ ko gënee ràññee wante yemu ca yemuta tout récemment rek am na série boo xam ne mu ngi doon daal di def buzz muy ban di wujju Cërgo bi nga xam ne xaar média ñoom ñoo nekk producteurs yi ñoom nag moom daal dina fa def passage bu am solo ci rôle ki nga xam ne moom moo di awa awa la ñu dalal wala Adja Fall en tout cas dama koy bàyyi mu nuyoog yéen rek wax la tey ak ban jëmm moo toog ne jàkkaarloog ñun maman nuy naa la. maa lay fay sama nenne di nuyu mbokki téléspectateur yi seetaan. Mm-hmm. ak mbokki àdduna bi yëpp nag. Mm-hmm. di nuyu waa mbokki VIP Sénépeul. Séné people. Mhm. VIP people <laughs> VIP people di mhm. nuyu yéen ñëpp nag. Mhm. Euh, sama doom ji yaru ji di kontaan ci ni ma dalalee. man nag Adja Fall. dëgg yàlla ñu gën maa xam ci borom Diourbel. dëkk sëriñ Bamba boobu. kenn di ñëw. <laughs> foofu laa dëkk. Eh, ñëw Dakar rek. Mhm. di daan doole. d'accord di rakk Adja Fatim Thioune. Mhm. taawu <laughs> ci biir loolu déggoo ma la man xamatuma sax fu may tàmbaleeg yow damay ñëw ci awa. Mhm. bu wujju peccor go damay dem ci Adja bu dina ma neex foo bëgg ñu tàmbalee. suma grande sœur Adja maa ngi koy nuyu nee na. ndax man awa laa moo jaaxal ñëpp na léegi loolu. tur woowu ni mu gaaw a soppe ko micro bi baal ma yëkkati te nee ma xamuñu ma ci rôle yooyu may leen ah la tey bu ñu la yóbboon ci benn rôle solo la fa robb avocat avocat mhm. ngay doon mhm. yóbboon la def la juge juge mhm. euh, euh, la ñee naa leen toujours ñaw bi sax ci artiste la bokk ñii styliste peintre bi ci artiste lañ bokk Mhm. artiste moom dafa nekk loo xam ne dafa yaatu. dafa war a polyvalent. olof bi tuddee ko aar tiis ak naqar. Mhm. ndax foo amee rëq-rëq sa biir néegu sëy mhm. wala sa neexul. liñ naan say rab naan si wuñu mhm. euh, soo taalee télé yem ci ñoom Adja Fall ak ñeneen ak mhm. ñeneen mhm. di nga ree looloo tax artiste am solo d'accord mais lan moo la génnee ci taasu bi ndax ku la xam ci taasu gu ne muut ànd ak say bongo euh. man lañ la xamee euh. nga jékki-jékki daal di génn carrément ci taasu bi dugg ci li nga xam ne moom moo di cinéma xam nga moom laa la wax sànq ci biir wax bi may dugg si Adja Fall taasukat Euh, wax dëgg yàlla di taasu génne cassette. Mhm. Euh, cassette bi tudd Cere Puso. Mhm. ma ànd ci ak euh, Papa géwél mhm. mu dalal ma ci aar bi. bi nu demee ba mu yàgg ñu dugg ci mbirum théâtre waaye la ma ca dugal mooy ki ñu wax Leuz. Leuz Média Leuz comme Papa daf ma tegoon ci loxoom pour muy tourneel clip. bu ma defee son ci studio Papa Ndiaye ba pare. mu boole ma moom. bi ma booleeg moom mu daal di may euh, tourneel clip bi. Mm-hmm. Euh, léegi defaatal ma beneen clip bu tudd sunu bàmba ji ku ci bëgg na jaar sàkk kenn terewu ko. Mm-hmm. léegi nag sëriñ bàmba fay prix. Mm-hmm. Euh, ci la mag na ma Adja Fall daal il faut ñu def suñu sketch yi ñu commencé. dama la ciy dugal ndax sant naa la ci ndax rôle géwël lañ ci soxla. ma ne ko ayca lu ma ci dugalee nag euh, may ànd ak bongo yi di taasu. Mhm. loolu macha allah indi na lu ne. Mhm. ndax ku nekk xamante naa ci ak yow. la ndeysaan nit day am xew Amérique sax daan ne Adja Fall bi ci dina ma neex laay woo. ñu di ma wooyee fu ne ma liggéey ci lu ne macha allah. sant yàlla rek daal. Mhm. loolu moo indi euh, euh, théâtre bi. d'accord léegi nag comme lu dagg moroom a lay seeti. te euh, Sénégal euh, jàmbaari liggéeykat yi. Mhm. dañuy xool ñi nga xam ne ay jàmbaar lañu. Mhm. ñu leen di boole ci seeni liggéey. Mhm. producteurs yi daal gis loolu. mu neex ñoom it ku def sa théâtre. daal la ci woo daal di ma ci woo. d' accord looloo waral théâtre. <laughs> d' accord euh, ñu gis rôle bi nga xamee ne joué na ko foofee ci dina ma neex ak li nga xam ne moom la daal di joué ci wujju peccor ga mu nekk deux rôles différents dina ma neex dafa nekkoon géwélu VIP di wax lu neex ki nga xam ne moom moo di géeram Maymuna Daaro tamit nekk beneen géwél bu ñeeño bu ko sonal ci wet gi bu tëyee ñu juboo bu subaa ñu xuloo di siisante mais da nga ñëw ci awa awa moom awa moom awa moom sénégalais yëpp mere nañ la ci dañ mere de ce que doo génn sa nit xas la wala saaga la wala traité la yenn tur yoo xam ne da toog nga xalaat ne boo sañu rôle bi doo ko joué est-ce que mas na la daal man samay mbokk dañ ma koy tere mm-hmm. nee nañ ma lii moom vraiment Adja àndul ak yow ni nga doon defee sa rôle géwél di def say bongo di taasu di ñëw muy neex loolu nit ñi dañ la cee bëggoon. Mm-hmm. boo demee ba yàgg nga dugg may leen waa kuy kuy dund ci àdduna di nga ñaan avance. Mm-hmm. Mm-hmm. te tamit producteur ak man ni ma bëggee xaalis. bëgg na xaalis bu ma lew ak bu ma ñaq. woo ma ci benn liggéey signé ak man contrat fay ma. ma di ko delloo loxo. parce que yéen su ma delloo loolu loxo. te dina ma neex mi nekk en pause dundee yéen a ma koy jox. la kon bàyyi leen ma rek ma liggéey. loolu ñi ma xam dëgg te jege ma samay proche. xam na duma ma duma du mhm. mhm. kon lolu suñu indee rôle boobu jox ma liggéey la rek. Mhm. robbu la rek buma ma c'est important ñu tuddé ko awa. kon du Adja Fall awa la. nañ bàyyi awa bi mu def. mais awa Adja ah. Fall xam nga sénégalais dañuy daldi di euh, personnage. Euh, parce que dañuy dund film dund série ba dañuy yaakaar ne. li ngay woné yow non nga mel alors que dañuy faté né li film rek la est-ce que du la dal sax euh, nit ki sandi la track ci turu awa. fekk nañ ma ci sama auto may dem nit daw ba ci man ne ma bàyyil ndee la bàyyil ndee la soxor nga trop. Mhm. yow mii yéen ñu mhm. mel ni yéen yéen a taska jàmm. ndeysaan dama ko reetaan. ndeysaan man ko naa ko bàyyi baal leen ma. Mhm. ay waay baal leen ma su ba. ndeysaan noonu la rek boo ko jàppee noonu doo sonn. mais boo dee artiste lu ñu la wax nga gaaw a noonu. kese foofu rek nga koy teg. nit ñi ñooy am ñoo xam ni yeewuñu xelu ginaar la ñu yore. fët fët fajul dara. parce que li ngay xam ne moom ngay liggéey nit ñi ñoo war a xam ni lii liggéey la. dëgg la mais Adja Fall ñi ko jege te jege ko loolu li ma waxoon sànq ay projet mhm. xam nañ nii moom defar la gën a mën mhm. waaw diggante bu yàqu wala <laughs> jëkkër ak jabar mbaa ay xarit mhm. ma dox ca lu baax mhm. lu ma xam te war ko wax te mu nar a yàq sax ma tënk ko mhm. loolu ñu bari xam nañ ko ci man xëy na nag bu ñu ma joxee rôle boobu man wax dëgg yàlla du ma dox sama jabar bi nga xam ne mooy sëy ak sama grand frère ma bokkal ndey ak baay dafa reewoo ma téléphone ne ma lii de bi ma ko seetaanee dama ne yee ay sama jëkkër ji sama jëkkër ji de xamul lii billaay xamul lii de jox nañ ko lu mu xamul ma ne ko waa xaalis moo bindoo noonu di ko tooñ amee ah, ci biir loolu. Euh, mën nga ne sant yàlla bu baax ndax euh, bu dee jàngale da nga ci doon def réussir na. Mm-hmm. parce que role bu réussir weesuwul nit di la attaqué ci mbedd. Mm-hmm. kon bu réussirul woon. Mm-hmm. Ah, duñ la bàyyi xel boobu. Ah, maanaam li ngeen ci doon jàngale dafa nekk loo xam ne sénégalais dañ ko doon dund. seen biir kër yi yéen ngeen osé. génne ko wax li nga xam ne mooy naqar bi ñoom bi ñuy dund. am na koo xamante ne doo koy dund man. bari bu baax mais daf ne ma lii. Mhm. billaay Adja Fall yal na ngeen gudd fan. nee na mhm. buñ koy seetaan ñoom. Mhm. dañoo am télé boo xam ci cour bi lañ koy teg. bu bëccëgee ñoom ñëpp dañuy toog ak guddeeg yëpp. nee na même bi da def exprès taal euh, boobu mu ñëwee vraiment. ah allah idée bu am solo la parce que nit ñi yàgg nañuy def ay sketch te defuñu sax yu mel noonu. mais lii mu génne ni mu nekk dañ may wax ne des ne ma lii dafa war a gudd. warul gàtt. Mhm. may leen waa mais sketch moo. ñoo ko dem ba bëggal ko seen bopp. Mhm. dañ ko bëggal seen bopp. waaye fa nga mujjee joor saf na mais moom sama àq dal na ko man kenn duma laal rab yee ko def doonu <laughs> ñoo ko dof loo mbaa. xam naa ne àqu ndee dal na ko. Mhm. waaye samay rawaan du ndax toroxal bi ma toroxal. ak ni ma ko bëggee. di ñëw ci moom di ko wax ay information ànd ak moom mhm. amul lenn lu muy def loolu di ma toroxal di la trahir waaye bi mu sàngoo ba mel ma ko yow li la li ngay nurool dof bi dëgg dëgg dëgg dëgg moom ngay nurool ñu <laughs> koy nuyu de passage ñu koy nuyu de passage moom it euh, ñu koy nuyu mu nekk nit ku baax ndax moom la ñu ah, njëkk a dalal ah, moom la ñu njëkk dalal balaa ñuy waxtaan ak yow mm. mais ah, kontaan nañu lool ci rôle boobu ngeen di jouer mm. yaakaar naa ne nag waxtaan bi neexoon na lool te am na solo te yéene te jëlee ngeen ci njëriñ ak gindeeku lii rek moo amoloon solo moom suñu maman bu baax bi nga xam ne bañ ko woowee daal di xàddiwul benn yoon waaye tànkam lu wuñu aussi benn yoon mamaa l'émission tire à sa fin ah lan ngay daal di tàggatoowee rek kon émission bi ni mu neexee nii waa gis nga gis nga mu neex lool à ah, vingt minutes wadd na de <laughs> waa fa tabaarikàlla macha allah àdduna bi seetaan yëpp waa internet yi. Mhm. ñu ngi rafetlu émission bi di kontaan ci sama doomu ndey ji aji caam la mhm. solution ngalam. doomu ndeyu Marianne mel ni jaagob sëñ Fallou bi. ne ko ndindi kër galas bi lay ko ko rombo rombo sa njariñ ndindi. kër galas di ko gërëm muy maaloo captage zone de captage culturel bu ñaawul boobu kontaan nag ci sama xarit ba sama càmmiñ li tange ma koy xam mhm. Sen TV la woon ndeysaan yàgg na billaahi mu nekk fee ca Medina dëgg la Tange di ku am jom ku nangoo liggéey et eh, dama ne Tange demal doxal sa dox mm-hmm. bu la kenn fàqatal nit dafay am fulla te dangaa am fayda ci sa bopp mm-hmm. am fulla respecte sa bopp xam ki nga doon xam li ngay jar xam yaay kan waxi noonu fële nga koy yóbbu danga koy tappal étiquette bàyyi ko ci mbeddum kiñaan mm-hmm. gars yi di ko teppi ñu iñaan ñi di am lu ñuy wax wala macha allah <laughs> sa yaayee liggéey li affaire bi ndey ci la yal na doon télévision bu mag a ci barke Uh-huh. te réglé wodduwaay góor ñi ku ci yaru ñu takk la ku ci yaree du ko ñu fa yàlla balaak góor ñi dofu ñu ne bàyyi góor ñi dofu ñu e ci yaru ñu takk la ku ci yaree di ko ñu fa la ne balaak sa uh-huh. ndey góor ñi dofu ñu bàjjani góor ñi dofu ñu te ndeyi góor ñi dafu ñu eh ku ci yaru ñu takk la ku ci yaree di ko ñu fa yàlla balaak sa ndey góor ñi dofu ñu may leen koddu waay te fonk seen bopp oh. ak raw danga koy fonk jox ko ki koy yellool mu teral la cey ku yàlla teral ku ko teer daddil ci toroxote nga jëm tans yàlla la teral foofa <laughs> toj nee naa la loolu moom foofu rek lañ ko daal di mën tëjee mënuñu ci tegaat leneen ndax neex na ba noppi voilà c'était votre émission Sama Star doon am mbégte ak contentement dala suñu yaay ju baax ji di euh, Adja Fall moom it gis ngeen euh, njàngale mu neex mu rafet mi nga xam ne euh, def na ko di yéen tamit sama mboq jeunesse bi sama mboq xale jigéen ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax di leen jox dig daje beneen yoon Beneninda, Nana, merci beaucoup, à la prochaine, bye.